Bamba waane liggéey sëñ Bamba liggéey sëñ Bamba liggéey sëñ Bamba liggéey sëñ Bamba liggéey sëñ Bamba liggéey Omar jërëjëf kontaan jërëjëf Baye Omar jërëjëf jërëjëf Baye Omar jërëjëf jërëjëf Baye Omar jërëjëf jërëjëf Baye Omar jërëjëf jërëjëf Baye Omar jërëjëf jërëjëf Baye Omar jërëjëf jërëjëf Baye Omar jërëjëf ñaana ñaanal loolu mu yàgg fi te wér te xam ne kat yàggam gi fii moo suñu njariñ ñun ñëpp kon nag dañu ñaan sëñ Omar Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér bu ko defee nag dama ànd ak jëwriñ Ami Collé mii ñëw ak suñu asaka yéene ndax sëñ Omar dañ lay wax ni defal nga ñu loo xam ni ñun mënuñu la kaa fayal ngir kat ku la xiir ci liggéey Serigne Touba ak ku la nag kaañu liggéey Serigne Touba yaakaar naa ne kooku mënoo kaa fay ko sëñ Omar ñun amuñ sa fay amuñu sa fay benn yoon tey jii lépp loo xam ne rek def nga ko ci ñun rek tey feeñ na ngir sonn nga ci ñun nu ne buñ feree ijji tey ba mën a liir bàyyi dem ba xam ne liggéey Serigne Touba yaakaar naa ne yow yaa tax kon ñun amuñu sa fay dañ lay ñaanal nag nga yàgg fi lool te ànd ak wér te xam ne lii ñëw tey jii dañu ñaan yàlla nga ñaanal ñu bu ëllëgee mu gën a kawe nii te gëm nañu Mbàkke Balla bis boo ko ñaanee rek dina am ngir ñun lépp lu ñu la defal lu ne rek doonul loo xam ne luñ la fay la ndax mënuñu laa fay ndax defal nga ñu loo xam ne duñ la mës a fay ay tout tànk lañ nag amaguñu dara mënaguñu dara mënaguñu nenn waaye nag ñu ngi ci Serigne Touba te ñu ci tànk Serigne Touba nañ ñu ko wax jàngalee woon ak ñu ko wanee woon ba tey ji ñu ngi ci tey dara du tax ñu génn ci ngir yaa ñu woon kan mooy Serigne yaa ñu tax a xam kan mooy Serigne Touba ko sëñ Omar fu mu toll ñu ñëpp suñu xol dafa fees ba wax dañu jël lu du kàddu gi rek bàyyi ko di la wax sant nañ bu baax gërëm nañ soxna Ami Collé mii tam ma ànd ci liggéey bi ma ko ñaanal Mbàkke nga ñaanal ko loolu lu mu dund doyut ndax liggéey Sëriñ Tuubaa dafa metti di nga dégg lu ne di nga gis lu ne waa mu tër rek te ci déggut gisul xoolul leen lu du sa jëmm ji képp yaa ko ñor kon sëñ bi lépp loo ko ñaanal rek doyul ñu ngi sant bu wér nag di gërëm bu sant képp ku fi teew di wax na ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bu wér a wér di wax lépp lu ci jub rek ñu xam ne sëñ bi la lépp ci dëng rek ñu xam ne suñu maag suñu ñàkk mat la wasalaamaaleykum wa rahmatullah tubarkalla jërë ngeen jëf lii day sëriñ bi dina ko waxal boppam sëriñ bi dina leen santal boppam léegi waaye lii ku ko fekkee ku ne war te sedd ku ko fekk ci bëgg lu baax ca bëgg Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul te sopp maam Cheikh Ibrahima Fall sa xol war naa sedd ci lii waaye sëriñ bi jërëjëf Mbacke ni ma ko waxee woon démb rek waxe ko léegi ci biir salle bi bi kilifa yi toogee noonu laa koy waxee waat fii Mbacke sëñ Omar am nga yëg am nga yitte am nga lislaam am nga diine am nga njariñ boo fekke woon fii démb nag yi yee nga xam ni sëriñ Tuubaa rekk la ñor sa maam waaye maam Cheikh Ibrahima Fall ngay bégee kon Mbàkke ni ko mbooloo mi ñaane yàlla fi yàgg lool ca ànd ak ci barke Cheikh bi tam ne di ñaanal tu tànk yi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoo jëf jëf ju màgg ji jëf ju rëy ji sëriñ bi ne di ci ñaanal bu baax a baax nee ci seen kàddu jëwriñ yi toog nga xam ni moom lañu àndal ci biir liggéey bi sëriñ bi ne jëwriñ Ibrahima Ngom ak soxna ami kolle mu baax mi sëriñ bi ne ñoom ñëpp ak yéen ñaan ñëpp sëriñ bi ne mi leen di ñaanal bu baax a baax a baax ne ay tout tànk lañu waaye nag tout tànk yu xam fi ngeen teg tànk ngeen sëriñ bi ne kon nag waaye sëriñ bi ne kon nag dañ leen a war a ñaanal sunu borom sàmm leen ba fii ngeen teg seen tànk sëriñ bi ne bu mu teggi ku benn benn benn yoon ne sëriñ bi ne fii ngeen jaar foofu mooy yoon wi sëriñ bi ne bu leen ko wàcc benn yoon ne yoon wi moom ne jëfe ay ndigal bàyyi ay tere warmaal képp ku la mag yërëm képp ku la féete ak ndaw sëriñ bi ne loolu di moo di yoon wi sëriñ bi nee na liggéey jaamu yàlla xam-xam sëriñ bi ne loolu mooy yoon wi ne bu ñu doonee ay ndaw ñee ñu li leen tàggat ci loolu ba bis bii tey ñu ñëw wane leen ma yii wanewaat lu mel lii tam sëriñ bi ne dañ ci santaat yàlla bu baax a baax a baax waaye sëriñ bi ne ñoo ci delluwaat ñu kël Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul nee cay ñaan lépp loo xam ne jëf ngeen ko yàlla na dëppoo ak ngërëmal sëriñ bi mais lépp lu ngeen yéene woon ci jëf ko it ca doole ji matiwu ko nee balaa déwé na yàlla na borom bi dafa leen xéewal nee man na ko am na ko kon yàlla na ko yàlla def amin ya rabbal alamin ah Serigne Omar Mbakke nee ñoo ngi leen bu baax a baax nee ngeen gën a góorgóorlu nee gën a fonkaat nag kilifa yi nee fonkaat bu baax a baax waajur yi nee ca xam lu bu baax a baax ni loolu rek la leen doy te moom lañ leen soññee waxtu wu nekk sëriñ bi ne ngeen góorgóorlu nee ci njàng mi nee ñiy liggéey na ngeen góorgóorlu ci liggéey bi déggal seeni kilifa nee bu ngeen tegee ci yoon woowu rek tegu ngeen ci li nu bëgg waaye bu ngeen wàccee yoon woowu rek. wàcc ngeen li ñu bëgg sëriñ bi ne kon nañu góor bu baax a baax gën a déggalaat seen i jëwrin gën a takkuwaat àndat ak moom ci liggéey bi ca xam ni fu baax rek rek lañ leen di joxañ kon sëriñ bi ne jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf léegi nañ tàllal loxo yi nangu ñaan na ñëpp wax amin na ñëpp wax sëriñ Omar Mbakke yàlla fi yàgg ci ànd ak wér amin jërë ngeen jëf